bo 95 ba ba ba fa demee ci Italie fekk ba ba bëgg a dem Italie damaa gént gis sëñ Murtala mu toog romb sëñ Murtala mu toog ci ab koñu kër te jaareem li gént gi mu ngi toog ni ni ni am ñu koy nuyu ma daal di am waa joo xam ne maa xamoon maamam ci ci ci mbir yi jabar ay ay suñu këreen di misaal waa waaja yor ab bant naa bant bant bii de mën naa fa lu ne naa fa lu ne waaw léegi nag ma ngay daw ci xeet topp ko léegi ginnaaw gént gi moom mën naa ci mën naa ci tasaruf xam naa ne maa ngi maa ngi ci ci gént ma ne naa daw topp ko ndax xam turu turu bant ba ndax ndax su ma yeewoo man ko jëriñoo ma romb suñu motulaa noonu toog ma ne ah te tamit suñu motulaa bu jag ma addit su ma ko nuyoo de kon kon kon kon keraw ma. daa ma daal di koy koy romb daal di daal di topp waaja pour waaji ji raw ma ci ci gént gi ma dëpp fekk si motulaa mu toog noonu daa mel ne ke ke moom doo ko fa ne woo sax ma daal ma daal di ma daal di koy nuyu sëñ bi daal di mel ne ku ma jëpp ci jëf daal di jël ñaar loxo mi dóor ci sa ma ñaar loxo yi nanguwuma jox loxo ma ne ah ok ma daal di ma daal di ñëw keer ma daal di di ñëw Italie vacance dem fekk oto sabak sa sëñ moo talaa ma daal di ñu dem wax ak moom ne ko de bi ne ko leetar ne ko ne ko samay baay ak samay ak samay baay sama sama maam ak sama baay ñu ngi amoon yàlla ci suñu tubaab kon kon maa ngi koy wutee ci yow kon maa ngi koy kon maa kon maa ngi koy wutee ci yow yëruma dara de waaye waaye li ma xam sama bopp mooy musuma mu yàlla mu daal di baax na incha allah incha allah wala lettre la ci la ko bind incha allah xanaa waaw noonu waxee nga xam ne balaa di dem ba ba ca ëllëg sama dem ma dikkaat nuyoo ba ma jubee buntu bi rek ba ma wane asalaamaaleykum bëgg a raam noonu si nuyu rek ma ne ah xanaa da ngay dem ba xanaa bañ kii maanaam ba ñu war réew yi bu dee dikkaat ma ma ma ne ko wax nag dal gën joxewu ma loxo ma ñëw di waxtaan ak sa sëñ Sall moom mii moom mii ne ko ne ko sëñ bi de nee na ma xaar ko mu ne ma ah waaye Moussa te te ngaa dem te ngaa dem laaj addiya moo gën de sama xel daa ne ah ok addiya yi kon matière la bant ba ma gisoon matière la ah ok kon nag kon nag dama koy xaar ndax ndax ndax ma génte ga matière laa toppoon ba ba sëñ Moussa talaal laa raw ma. kon kon te addi ji kon matière la ma ma daa ci gindiku ma ne ko baax na da daa toog sëñ sëñ bi bu ñëw daal di di ñu nuyoo ah xanaa dafa fa xaw a waxaat ma ne ko mën na ma xaar monsieur Ba nii ma dem ba ngoon jot ngoon jot yàlla la dogal noonu ne si Moussa Diathara mii ma ma fa toog di waxtaan sëñ bi di waxtaan teg sang noonu suuf di waxtaan sëñ bi mooñ ak ak ñeneen. am na benn benn mbokkum naari kajoor yooyu moo ko doon ataaya tey ndax góor ga góor ga taxaw nag moom mu ngi noonu yàlla yàlla ko ko yàlla doon ndimbal doon di ko ko fan xaw ma xam bu mu nekk ci ci ci ngóor su borom gi daal di indi ataaya ñax daa ngi jot téere bi moom alxuraan di jàng bari koy xel kaas ba ñu naan ba kaas ba digg mu jox ñu ko ñu barkeelu waaw te sax li ma jum sax mooy kaas balaa fàtte te jël waaw kaas boo xam naa ku ci am kaas mu bu def seen tuwaay jëfandikoo boo ko ma ne sax soxal na ko ngir ay mbir loolu suñ bi noppee noo nee na noo nee na daal di si waaw waaw waaw sallaaw kon ngeen kon ngeen may ko daa am muy wax ñëpp génn ba ma def sa moom képp ak yàlla. waaw mu daal ne waaw sala la waxoon waaw yéen sama daal di may ubbi ma ne ko waaw ma ne ma ne ko sama maam ak sama baay yi nga amoon yàlla ci suñu tubaab ma maa ngi koy wuti ci yow yuruma dara waaye xam naa ne musuma mu yàlla waaye dogal boo galfane yalfano naa ab ab bloc note ko biig di baaxal dara suñ bi di di xool ci ndajooram ci lal bi mel ne ku cher yooyu man ko man ko mel ne de dal ko ci dal ko nga koy jox ma di bind bind bind bind daal dina ma bul ko wuti adduna ci kaw dafa téen keroog laa mos a dégg kàddoom nga mu mu kawe kàddoom tëdd mu kawe di téen daal di ma bul ko wuti adduna daal di ma ma may ñaanal ne ne ma soo soo dikkee su bu ndikkee Sénégal dañ la loolu dara noonu la waaw da da li war na ma mu dara ay yoon ay yoon ma ne ca ma ne ca loolu nag di ko def di ko def di ko def di ko def waaw maa nga xam ne mu daal di nag neex na rek nag wala neex léeg-léeg mu am ca nag tàngooru metti ma géntu ñu ne ma kat nangam nangam ay xeeti xob yi naa nag ren ay xas ma ne ah man nag dama yàlla dama dama defal ci moom moom moom suma sun borom waxee loo xam ne daa xaw a kii ci man ma day mel daal suñ diggante dafa neex ba ah loolu daal yàlla dafa dis ay naan xob ak yàlla moom léegi dis defum bu ko su moom waa daal di tëdd ab yor yor rek de tëdd na ak bëccëg gannaaw subaar jàll li may wax ay baat ne ne wax ko baat jóg toog wax ko toog ko dal di ni griif waaw dal dañ te wa tàngoor àggoon na ci ba dem ci médecin yi sax ni seet ba xam médecin yi ne ma ne ma tàngoor normal la ci laa xam ne kon du tàngoor wu saxiir daal di ne nekk ci ci ca noona ba lañ ca mën a waxtaan ci nag ndimbal ya yaa waaw gama ci la nga xam ne mas na ko waxtaan ci ci ci ndimbal yi mooy bis nag ma ma may jàng sóoratu sóoratu sóoratu saariyaat ma ci wonta mu sama sama umura ma daal di ma ma ma daal di gis ñu wan ma film ab adduna bu bu tukki nooy mel jëxëran tusubaara de tusubaara waaw dama daal di bëri sax dama daal di jóg ñëw ci suñu bés jóg ma nekkoon ñu bokkoon kër ma ne ko ah suñu biir tey tey tey tey gis naa lu lu lu yéeme daal di koy net nekk biir noonu waaw nga xamante ne ñu dox ñuy dox nag léeg-léeg ñu ñu wax man nangam nangam jox la jox la jox la tur sangam jox la tur sangam boo xamante ne nangam nangam. léeg-léeg daal na nangam nangam yu bari am da ko jiroon ci quatre-vingt-douze heures fàtte naa ko ci sëñ Saliou moom it joxoon na ma loo xam ne ba ko jëfandikoo dafa tàng ci man tàng ci man boo xool dama ko daal di teg waaw tàng ci ci man loolu aw bëy ci ci xaside yi waaw nga xamante ne te ne moom it lu mel ne rab bi may sax boobu mu joxoon ma ko na dama gën doon gis sëñ Tuubaa ci ca ca keer mu ne ma mu ne ma loo bëgg yor yow ajjuma mu ne mu ne ko xanaa arrahman arrahim dala dala soxla mu ne ma ci xaaral boo ñëwee waas bi Sénégal mu ñëw wax ko suñu abibu imam moome wax ko mu ne ma kon de danga ci am lu leer ca kanam ba dem ci Sëriñ Saliou mu jox ma ko daal ne ma digal naa ko digal naa ko digal naa ko lu ci nekk ci aw yiw ak secret ak leer yàlla na ko suñu bom defal waaw ak nag waaw yéen waaw ñu ñu ñu ñu dox ci ci ca noona ba jël ba jël werd werd nag werd lu ma xuus ca ca si Abdou Khadir yitteem ja quatre-vingt quatre-vingt-huit moom it quatre-vingt-huit moom loolu moom yitteem ja daal mu ko waxee daal daal aata toog waaw daal di jóg dem ci néeg ba di misaal bi di jóg dem ci néeg ba andi andi nusxa bi andi ñoo taxaw jox ma ko di ma dox sart ya waaw waaw suñu bakk bi rahmaan moomu waaye bakk nee na keroog néegam la la la doon ba may seet si si si moto waaw waaw loolu la sëñ Abdou Khadir waaw. nga xamante ne te naan te naan ginnaaw bi nekk bi suñu jaay suñu mutalaat joxaan na ma werd bi waaw waaye da day mel ne ñoom ñaar ñoom moom kenn ku ne jëfe gala ginnaaw bi nag la ma ko soxla suñu saa yu jox nag ci mujj gi nga xam ne jëfe joxe jëfe gi joxe gi waaw waaw mu daal di mu daal di di mu daal di dem solo ci mujj nag suñu saa yu ne ma dem fa nag am lu ñu waxante nag ay mbir yu xóot yu xóot xóot yoo xam ne dana sax daanaa ko nettali waaye ginnaaw bi dama gént gis ko nag mu ne ma loolu mu ta nettali waaw yu xóot te xóot yoo xam ne waaw loolu la inna sudura quburu ma daal mi mi mi ko xam ne nekkoon léeg-léeg nga ñu ñu dox noonu ay ay xéwal yu bëree bëri rek ay xéwal yu bëree bëri rek di di wàcc waaye nag li gën a la ci kii ci ci laaj bi nag mooy li ma gënoon a yittewoo jaamu yàlla yu bëri def ma defuma ko woon daaw ma wóor kàttan nga def nangam ak mu nekk yu bëri yeeg li ma gënoon a yittewoo yàlla mooy mooy bañ a nafeq bañ a bokkaale bañ a gisal. yooyu moom moo doon sa sam muy te dëgg dëgg dëgg dëgg moom lu ma nekk dama cay nekk bu ma ci génn génn ca waaw lu may nekk lu may nekk dama cay nekk su may génn génn ca waaw wóolu yàlla bu wér wér wér wér wér bay sama kàmm bay sama kàmm suñu wàllu ba sama ko wax yàlla ne moom soit day Moustapha day jëw nañ la ma ne ma ne ko lu ngeen ma jëwee mu ne ma daj ne da ngaa yaa kar yàlla ma ne ko waaw waaw waaw waaw waaw lu bett tamit jot naa ne day gën waaw gars yi bu méttee ma waaw ibris yi tardé wala yooyu moom man de li ma xam mooy suñu borom narul ci ab julit lu may aw yiw waaw waaw loolu loolu loolu doon moo doon sama xalaat moo doon sama xalaat nga xam ne pas-pas bi tawhid ji wér te yàlla bu wéree wér jox yàlla ak xam jam yeyoo te xam ko man xaw ma dëgg-dëgg ak xam ja jox yéen dimension ak xam jam yeyoo te man xaw ma dëgg-dëgg ak xam ja jox jox si tubaab akam ji ñu xuma xuma dëgg-dëgg akam ji ku ma tasee ku ne ci sang yi moo def ma ji ma jox sa ak kam lay kattan ku ku ma gis ci jaamu yàlla yi daana am na jamono yoo xam ne sax muus ak yooyu yëpp dama leen daa wax sëñ Moussa waaw sëñ muus soxna muus sëñ ganaar àggoon naa ci boobu jamono loola ca ca njëriñ la njëriñ la maanaam booba ngir woo ma lépp rek ngir ci ci ci ma lépp. ba ñu demee nag ba ñu demee nag ba nga xam ne dem naa keer yàlla yàlla fa xeetal ma ci kuliitu usulu diin xismu aqida wal falsafa boobu boobu bi ñu bi ñu defee defee talab bi di ñaan kii yàlla ñetti tànn na ngay tànn man man man benn tànn du ngay tànn ñetti yëpp dama dama koy def benn kuliitu usulu diin xismu aqida wal falsafa gaa yi ne ma ah waaw bu ñu ko may nag ma ne leen kon mu ñibbi waaw. waaw man xaw ma nekk naa li ma xam mooy nii rek waaw man loolu laa xam ndekete boobu xanaa xaw ma bëgg sax ku li ak dafa ndax ku ma wax maanaam ak dafa dafa jafe nangam nangam waaye ku ma waxoon noppi ma xoolaat ne waa ji mi nga xam ne dafa dafa jafe ndax moom da ko jàng sama xel dama jàngulee ma ne kon kon waxam kon jot a sukk sukkandiku kon loolu mbaraal bi di cay noor ndekete boobu ak dafa dafa tasawuf fa ñu koy jàngalee. waaw ci dugg da da tamit nag di di di di boo ma boo ma joxe téere mu xaaral bi téere yi ja nga jàllu dama cee jàllu ba xam ndax dama naan seet waaw waaw paragraphe bi waa ji indi paragraphe bi bi mu indi ana ana bokk jiitu bu mu doon ana bu ca topp lu tax waa ji jël bi loola du ma doy damay daal di bëgg a seeti ba xam waaw ndax ndax waa ji du ma xam ba xam dëgg dëgg dëgg gisinam mën naa wuteeg sama gisin. ma nekk ma nekk ci ci ci ci ci ci booba di ànd ak booba nag di dund dund booba la ma xam rek ñu dem ko ñu dem ko ñu dem ko théoriser nag waaw ma daal di téere bi ma quatre-vingt-huit téere bi ma bi ma njëkk a jënd ñaari téere yi ma njëkk a jënd mooy benn bi moom puso seka puso seka puso seka yeekam li mu naan rek bi ma ko jëlee moom. am na tasawuf filmisaan wala la waxee kër yi tasawuf filmisaan benn waay ko wax di wax ci tasawuf lu ñàkk solo may xool ma daal di ma ma ma jëndal benn téere ba tey quatre-vingt-huit la mooy fas yéene ma xool ko waaye nag am na booba dëkkandoo yu ma nekkal waa ji ma dëkkal kooka mën naa wax ci ku baax lu lu kenn mënut a dégg mën naa wax ci ci ku ne lu mënut a dégg ma ma ragal ma ragal mu gis téere ba ma ma ma dajoo. waaw ma daal di jox ma daal di ma daal mu jëlaat benn téere mooy Igaasul Himam fi fi fi fi Sarxil Xikam kooku dama dama ne mooy mooy sama Cheikh Umar bi dë dëgg nag moom booba li may dund fu ma fu ma toll da su ma su su ma ubbee wan ma ko ne ma fii nga toll nangam ak nangam mooy sart yi lii nga gis nangam lee mu ci topp nangam firil ma kii waaw anwaaru muwajjaha ak anwaaru nangam ak yooyu ni mu koy waxee. waaw dama leeral woon sa tolluwaay mu yéemu lool sax ndax téere boobu borom nee na irham la ko bind waaye irham buñ ko irham da koy yàq ci kitaabu ak sunna muy leer mu ne ca mu ne ca mu ma ne ca noonu nag nga xam ne nekkoon téere yi parce que man fàttaliku ko mas naa def muhaadara boo xam ne muhaadara boo xam ne ci Tuuski la woon daayira ba sant ma ko moom xaw ma xëy xaw ma ci xëy sadis lekk naa booba ma ma def ko fa di Égypte am noppee sëñ sëñ Ahmad Samb mi mujj asar bi moo doon modéré waxtaan ma bu mu noppee da daal ne ah waxtaan man xaw ma lu xaw ma ci dara waaye waaye xutba yi xutba yi bëri na gars yi daal di taay waaw waaw waaw waaw waaw boobu Cheikh Ahmad adul ñoom ña nga fa sa sa sëñ bés jóoba nga jóoba nga fa gars yi bëri nga fa booba waaye ma gis ñu xaxtaay xam ne amul amul commentaire waaw mu ku ñuy wax Moubarak Lo ba nga fa lu bëree bëri daal waaye kenn commentaire dañ ma reer rek waaye loola man taxul it ma taxaw man de man de ci ci ca loola ndax ndax boobu am naay am naay mu basiraat léeg-léeg ñu war ma dara dara ci coo xam ne ay tur bagage ma ne ca di ku ko def ma dem nag ba ba quatre-vingt-quinze nag ma dem ca Italie Italie xam ne ko kon kon kon daaw ci ci tënk loolu jural na may ay ay ay ay xéwal yu bare bare bare bare bare bare bare ma bi xamantara bi ko faris yu bare bare bare bare loolu ñuy wax baat bu ñuy wax ilham loola loola am naa ci lu na ci la ñuy wax diwaan am naa ci lu na ci ajjana jooje ñuy wax alaxira am naa ci lu na ci ci sax nga xam ne mën naa am foofu foofu foofu foofu fa laa koy tënke ñu tuddee almiraj ruux yi am na am naa ci ci ci ceelu ne ci ci ci waaw nga xam ne nga xam ne ne daal daal yu bëree bëri nekkatul lu may lam-lame waaye lu ma leer nañ la xam ne doxu biir ba waaw am naa ci ci yoo xam ne danaay wax ne nag ci ay waay jànkati arab yi ñoo gën a ñàkk sens ci ci wàll jànkati tubaab bi donc tubaab ñoom dañuy gëm mystique gëm soof moom ñoom waaye dañ dul xam jànkati arab yi ñoom tasawuf dañ ko xamut ñoom maanaam dañ ko gëmut nga xam ne ay waay tasawuf de li ci nekk ci ay ay kiimtaan ak ay njëriñ xam ngi mu xamante dund ko koo xamante ne ne ne ne fexe nga ba ba ñàkk ko ne amoo ca ab cër perte nga perte ma boo xamante ne mënut ko dabbo waaw xam ne yu bëree baree baree bëri yoo xam ne ay ay ay njëriñ ak xam-xam ak i nangam ak i taw féex ak yu yéeme yoo xam ne ak di tur yàlla yi nga nga kër ci jot bu bu kenn ku baax demee la la mu yoroon su bam jox la ko. nga nga ci ci ci nga doon ko xaside yi nga ngay xam njëriñ ya di di xam alxuraan ji noo koy jëfandikoo yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne yoo xam ne daal ngoog daal yàlla ñu defal taw weex sëñ Xaadim laaj ba laaj ba ngoog tontu tontu laa ngoog kem kem tulaay kattan la ca jot na jot na wax sëñ na caa wax dara da ngeen koo wax mi ngoog waaw lu ma ca juum ma ngi koy jéggulu di ko def lépp muy addi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak addi ay soppeem ba soppeem ba jëw nañu jëw mooy Seex na Ahmad Xadim ak nag addi ay ku ma masa jëriñ ci ci noom ma jëriñ ci yoon yàlla salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh